Salamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. euh man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveillé conscience comme ni ko doon fal def rek and ko ak oreille du oreille du monde eh, comme ni ko rek jublu ci and nu nu bokk ubi bopi doomu adama yi ndax nit nit yurga rek ci am solo yurga dafa am solo ci nit ba euh kep ko xamni ci yalla men la men xel mi eh, de ci sarxé de ci wax yàlla dogal nag noonu ak oreille du monde dañoo booloo sukkandiku ci kàddu yu rafet yi ak xalaat yu rafet doomu aadama yi ak suñuy xalaat boole ko ci ak pour mën a informer askan wi information boo xam ne ay argument lay doon nga xam ne kenn ku ci nekk dang nga ca mën a dolli wala nga xalaat ca nuy ñaan nag képp koo xam ne yàlla may na la nga am benn xel mi ah, nga jóg wax ndax kat àdduna na foo xam ne. xeexuñu mais dañoo war a wax ci biir wax nag wax tànn wala dina wax tànn kenn ku ne day wax keneen ko wax ñu tànn wax ju rafet je génne ko moo tax nu àndandoo ñun ñëpp di invité ñëpp di tàllal ñëpp loxo di ñaan ngeen di partager vidéo yi partager leen vidéo yi te ngeen def commentaire yi ñu di leen déglu ndax ci commentaire lu ñuy sukkandiku pour man di orienter suñu bopp ci commentaire lu ñuy sukkandiku di jël seeni xalaat kon doonu bëggoon a ubbee Tak gi nga xamne ne jabaru Macky Sall doomi Macky Sall la takk ko ci biir Dakaro ko xam ne ci kasso bi la warona ne ko xamne lim def satti yi defuñu ko xamne lim def rey nit ko xamne lim def toroxal rew mi ko xamne ne def lu upp le tay le gouvernement du Sénégal tok diko ko ah mu jël alal rew mi di ko and ande ki góor jigéen ande ki walisa sa ak kone dama bëggoon du seetaan vidéo bi ba nopi bu nopi nak doro doro waxtan wi kon mam Thierno ah, bismillah Macky Sall est un criminel Macky Sall nit la koo xam ne dañ ko war di ci télévision yi ak journaux internationaux yi yëgal ko ñëpp ne ko gis koo gis nañ ko jàpp Macky Sall mandat d'arrêt international moom la Sénégal gépp soxla ci moom Macky Sall lim ni dafa rëy dafa rëy xoolee ni réew mi toll woon xoolee Abdoulaye Wade lim fi bàyyi woon moom ba muy dem ba ko fi da ko yóbbaale maanaam les fonds politiques yi war a nekk présidence de la république juróomi dërëm Macky Sall bàyyiwu ko fa Macky Sall gis ngeen ni mu def réew mi yéen ñëpp yéen ci tegaloo seen bët mun leen am lu ngeen lekk mun leen lu ngeen am naan lépp lu ngeen laal prix ba ca kaw la jëm Macky sàll toroxal réew mi yéen ñëpp ngeen bokk ko xamandoo jabaram ak doomam ak i bokkam ak surtout surtout Sénégal li mu def discrimination raciale bi mu def jël ay Haalpulaar ay mbokkam teg leen ci wetam ñu ànd di ko jàppale Macky yàq Macky li fi yàq bari na même élection yi passé niñ violé code bi yéen ñëpp ngeen di yéen a ko xam nañ def Fuuta yéen ñëpp yéen ko xam Macky Sall dama ne euh, ndox mi kenn ku ne xam nga ne euh, euh, inondation yi budget bi ni mu malgré Abdoulaye sàcc na ci lu bari yàqu ci lu bari am na koppar fi ba woon lépp la yóbbu tey Macky Sall se permet se permet dara ñàkk fayda dama le peuple defe naa ne njëlum jaam mi maa amoon ba deret ji moo jeexut ci nun parce que am na loo xam ne am na loo xam ne nit uru koo mën a tëddaale ak njaam nag bu nekkee ci yow deret jaam ne ci yow sa góom dana xasan bay nàcc doo ko yëg te lii nga xam ne moo nu dal moo nu dal dereti jaam moo dàcc ci nun ba lu bari duñ ko mën a gis te duñ mën a seetlu ndax yaakaar jox nañ ko yaakaar yaakaar di yaakaar di yaakaar di yaakaar di yaakaar ban dig bu fekkente ne fanatique nga fanatique nga ci yaakaar ngay dee waaye lañ la wax du yag mukk ba nga tek ci sa bët Sénégal bu fekke ni limay may wax lu dëgg jóg leen ngeen tok jël sen conscience tranquille tok xalaat ubi serum xel baye xol bi deglu da ngeen xamne li ma wax deug la Macky Sall nit la ko xamne dañ ko runa tej Macky Sall jaran tabax kaso bu mag def ko ci bir xale ngeen mètres ñu sacc portable seeni doma xale yi doon tax tafu ci màggal gi ñu jàpp leen seeni dooma xale yi xam ne ginaar yi jàmbur la ñuy wër di toj ay poulailler seeni dooma xale yëpp ñu ci kaso bi ñu téye néeg boo xam ne fanweeri nit lañ ca war a def ñu def ci téeméeri nit wala deux cent personnes ci ay xale yoo xam ne tumburanke tax ak ñàkk ku leen jàngal ndax toppatoowuñ leen tey le ministre de l'éducation bu fekkoon defoon na liggéeyam defoon na liggéeyam ñu toppatoo xale yi taxawu leen benn xale buy sàcc du ngeen ko ci gis benn xale buy daj yi poulailler du ngeen ko gis mais le président Macky Sall ak ñi ko jiitu woon danoo toroxal réew mi ba kenn ku ci nekk fa nga nekk dangaa toog waaye wóor na la wóor na la ne fi nga toog wéeru woo ngir yàlla kan doon ay nit ñi nag ñoo leen fi teg ma ànd ak ñoom ba tey maa ngi ànd ak ñoom waaye li ma gis ak fi ñu jëm bokkut ak la ma foogoon Macky Sall euh, li may wax nag euh, président Diomaye dafa xam lépp jàng na euh, gone la te gëstu na te moo jiite réew mi li may wax dara wumpu ko ci te président Ousmane Sonko dara wumpu ko ci muy le premier ministre Sénégal yi ay nit lañ il faut nu respecter nu respecter mooy ni ngeen di doxalee ay xel ñoo leen topp sab tànk boo ko yëkkatee bala koo teg xam nañ fi nga teg xam nañ fi ngay jëm fi nga jëm ay nit lañ ñuy xalaat Macky Sall bu fekkee ni yéen ñeme ngeen koo fay ab saleer ah bàyyi ko doomam dugg ci réew mi dajale góor jigéen yi géwël yi ah ñoom Wally Seck LGBT ñu tëgg ndakaaru ah di tasaare xaalis di maye di woy yéen ngeen man leen toog di leen seetaan dem leen cent mètres ngeen ubbi doomi jàmbur yi bu leen fi xaar justice bu jaar yoon parce que nekkuñu ci yoon bu nekkoon ci yoon te am sutura Macky Sall ku ñàkki teggin la Marème Faye Sall ku ñàkki ñàkki teggin la waaye nu itam ñu ñàkk fayda lan bu dul ay dof derti jaam des ci noonu am na loo xam ne kenn waru ko nangu kenn waru koo seetaan te nii nga xam ne nii nga xam ne doomu Macky Sall takk na ko jabar ci réew mi dajale géewe léegi yëpp ñu yéen doo tëgg ko fecc ak a woyaan góor jigéen yi sar xolle lu ne am ci réew mi yéen mën a toog di ko seetaan boobee ngeen bàyyi LGBT samp ab drapeau ci digg réew mi digg réew mi nun nag yàlla moo nu nattu xanaa ndax buñ bokkee waxante dëgg mu sunooni ci jàmm xamuñu luy jàmm ñàkk nekk ci jàmm xanaa du ngeen ne ma ca jamono yu jëkkee bi nuy jàppee jaay jàmm la woon xanaa du ngeen ne jàmm la bi tubaab bi dellusee encore daal ne ñun ay dof lañ imposer le néocolonialisme manam yeen bu ngeen di noyyi sax ma la jox ngelaw li ngeen di lak ngeen koy yabbi sama lak ngeen di wax ah li ngeen am momu len ko mako mom ah est ce que lolu jam la te lolu epp na juróom ben temere est ce que li jam la la colonisation yow do daa rabu àll nga li ci sa xel mako ci def ah boy tàqantu ko sax tiafka gi ci man la war aw do ci yow. colonisation un type colonisé est un poltron un type colonisé faut qu'on fasse day un type colonisé amul un type colonisé ku ñàkk xorom un type colonisé par la langue de son maître loolu moonu dal muy natt boo xam que je que pour sauver que ñu jiite réew mi dereti jaam gi dàcc ci ñoom moo tax ñaare dañuy dox di téqatalu wala ñuy dox di gëlëm wala sax dañuy dem ba duñ xam fu jéeme réew mi bu fekkee ne le gouvernement du Sénégal dafa am deal ak Macky Sall te ñu teg leen fi ngeen suñuy mbindaan war ngeen woo leeral leen lépp ban xam ko ndax ki lay jàppale jàppale li ci lu wér waaye fi nga jëm bu ma ko xamut ngir fanatisme képp tax ma topp la danga ma dugal te danaa la dugal dana waxal loo xam du dëgg te des na ma jéppi te ci sa bopp des na la ba kan gore te ubbi bopp sénégalais yi président Ousmane Sonko vous nous avez vendu un projet projet bi gis na design bi architecture bu am solo la même toute l'Afrique ñu ko doon séenu surtout les assises nationales yi nga xam ne defoon nañ ko te inclus ko ci biir projet bi

sa sa sa sag doy sag doy ak sag mat am naa yaakaar ne président Ousmane ak lun la désorienté ba doonoo président de la république mais tu es le premier ministre na nga imposer le projet mu taxaw assemblée nationale bi bu yàgg ba tey ma tas leen ko nangu leen koo tas am na lu xew ñii fi Macky Sall tegoon ngeen lànk bañ leen dàq ñu dem Sénégal gep ngi leen di déglu France France jël Macky Sall nga xamné sun secret yépp les données du Sénégal database du Sénégal lépp ngi ci loxoy Macky Sall armée bi tout ci loxoy Macky Sall lay may ko ndëgë ni ndax toujours même armée bi fi Macky Sall lim ci ñun yépp sàcc sun alal def lépp jël avion dem yoonam weeru dee njël suñ xaalis di ko fay ci koo xam ne dañoo ameel xaalis ndax dafa sàcc suñ alal koo xam ne dañ ko war a àtte mu dem yoonam koo xam ne ak lim fi rey ci ay nit ma rey nit ñi képp rek waaye li dee mu sànni ko ci géej gi kenn xamul lu mu toll tey kooku kooku président Diomaye ba muy dem eñaan dafa eñaan eñaan li woon ci palais bi lépp la bale yóbbu baa doole bu mel noonu ah heure bi waroon naa fekk Interpol di ko wër waroon naa fekk FBI di ko wër fekk ñu siiwal ko ci organe de sécurité ci monde bépp ba ku ko gis teg ko loxo ñu fay la heure bii dana war taf photo Macky Sall ci mbeddi Paris yi kii ku ko gis ñu jox la cent kii ku ñu jox la cent millions Macky jar naa jar na jar na recruter ñu ko wëri tey doomam dikk naan damay takk jabar ñu sar xoli góor man dama ci gën xari goor góor jigéen yi ci biir pecc meek ay wali sekk yi tëbëg mais ñun xanaa suñ doom yi ay ram lañ Ousmane Sonko mais man xanaa juru may doom may itam mais Ousmane Sonko loo an lan la mais lan xanaa man aw may doom ah xanaa ñenn ñi juruñu am kaso bi ko tabax pour ñun ah bu ngeen mënta liggéey joxe leen réew dama lin dund ci at juróom-benn fukki at jëm kaw dama ne ku dund ngay nga dese bariwul danoo xeex ba toll ci at yooye war a jago ko Sénégal baaxuk Sénégal loolu moo tax ñun ñëpp ànd ak yéen jàppale leen pour ñu bokk taxaw Macky Sall bu ngeen ko tegul loxo xale yi daanu jóg de bu ngeen jàppul Sall xale daanu yëngutu dama ne on vous croit Sénégal nag lii may wax lii may wax lii may wax ku fanaati du ko dégg waaye bu ngeen defee ne yéen a ma gën a gëm Ousmane su yéen a gërëm projet ndax ngeen seen bopp nit nag day jël aw yoon ba yàgg mu juum jëlu ñàll aw ñàll ci la ci la jomaay mi jaar danoo bëgg mu wàcc ñàll wi aw ci autoroute bi ñëpp di ko gis waaw noonu duñ ko nangu de surtout tuuma yi nga xam def li ñu ko ah ngeen doon waxtaan ak da ngeen a dialogue ak ay pro nangam nangam ñëpp a koy wax de ñëpp a ngi koy wax waaw man nag gàcce dong laa ragal waaw ca kaw laay wax ñëpp dégg ma bu lu dikk ëllëg ñu ne waxoon na ko waaw noo ngi jégalu bu baax a baax a baax euh, di wax réew mi kenn ku nekk na jóg ubbi am xelam toog xalaat réew mi dañ koo bokk le gouvernement bii ñu créé gouvernement dafa war a jege askan wi jege askan wi nag mooy yéen seeni xel ngeen di ko dugal ñoom indi seen xel yi dugal bu ko defee métti du nekk daañu ko mën a localiser ba faj ko waaye bu ngeen pat bu ngeen nee pat baaxut j'encourage les intellectuels encore du Sénégal del di encourager l'université de Dakar del di encourage cadre yi nga xam ne nekk nañ Dakar te xam dara lañ xam nañ ko génne baykat yi ci àll bi ñooy bay ñoo xam ni tool yi mel ñoo ci dund ñoo ni ci sàq yi ñoo ni ci dàgg yi ñoo ni ci xiif bi ñoo ni ci naaju tàng wi baykat yooyu aussi nañ góor-góoru portable yomb na li leen naqari ak liñ bëgg ñu di ko wax ñu buñ ci jotee daañu ko jottali ba gouvernement bi jot ci dama ne bu leen toog ci tàngoor wi yéen yi ci kaso bi yéen ñi ci kaso bi xam naa sonn ngeen sonn ngeen mun leen a am benn information bu ngeen joxe waaye seen i bokk seen i bokk nañ jóg ut ci portable yi bu leen ko xeeb portable yi moo soppi Amérique portable yi moo révolutionné le Sénégal les pays du Sahel mi ngi dem ba booloo xam nga lu ko indi portable yi moo ko indi cette communication solidaire waaw réseaux sociaux yi nga xam ne lépp lu yëngu ci kër ñu wax la ko portable yi dama ne bu àddunay tukki ñee koy tukkal portable li ngeen ma dama ne portable bu guerre mondiale di ñëw te mi ngi ci yoon wi troisième guerre mondiale mi ngi ci yoon wi buy ñëw portable yi danañ ci liggéey liggéey boo xam liggéey bu mag lay doon te laa technologie G5 américains yi liggéey nañ ko ànd ko ak juif yi ak allemand yi cette technologie G5 bale am doole dëgg dëgg deux mille deux mille trente deux mille deux mille da nga nekk ca sagata di bay sa gerte bay sa gerte. L'Al sa portable ñu sànni ci ab bomb nga teg ko sooy nop mu cancer dama na nga nekk sagata avec cette technologie G5 nga xamé de faire rassembler les peuples du monde il faut nga am données scientifiques yu il faut nga am cette science artificielle am ci niveau bu mak mën a sécuriser sa dëkk moo tax fii léegi aux États-Unis cyber security bi dafa gën a garaaw xale yépp dañ ciy sóobu parce que guerre mondiale bii ñëw soxlawuñu ay ka soxlawuñu ay ay ay ay avion gars yi soxlawuñu ay ay ay ay bombe li gars yi soxla portable portable bi nga ŋàbb mooy li lay rey te ñun ñu ngi nelaw mel nay doomi raam portable yi sa numéro laay jël ca kaw yónnee la loo xam ne boo ko nee tegg ci sam nopp doo dund ñetti fan portable yi heure bi heure bi en médecine ñi ñi ngi fayu portable yi commencé nan nga am benn benn benn thérapie booy def sa hôpital yónnee la ko sa portable nga bës ko taf ko ci sa fa teg ko teg ko ci fi cancer bi nekk muy vibre di tàng ci sa am na yu bari yoo xam ne kii bi da koy def portable nga toog teg ko solo moo sa température ak sa deret sa lépp loolu lépp ci technologie bi leen ne mais li ci ëpp solo ñëwagul la ci ëpp solo balaa ñëw troisième guerre mondiale bi taxaw te yéen Sénégal Sénégal dama ne ab rideau ab rideau képp bu tëj seeni bunt mun leen koo defar àdduna bi avancé di daw ñu sol ay xale xale yu ndaw ñoo ne war noo mën jóg am lu ñuy bañ lànk lànk di traîner ànd ak sëriñ soo xam ne ah billaahi wallaahi buñ dee jullit man dana ma jaxal amna lo xamné ne kenn ko def dama né bu fekkone sen seen ñom def nañ ko Sénégal du melni le Sénégal fait partie des 22 pays les plus pauvres les plus endettés les plus corrompus du monde Les Nations Unies def nañ ci liste bi président Diomay, tu n'as pas le droit de traîner les pieds il faut nous dire la vérité deug googu bu fekkee ñun xamunu ko duñ mën a dem fenn lii may wax nag bu leen defeen damaa contract damay xeex ak déedéet waaw damay nit ànd ak yéen nu bokk fu ñu jëm waaw ma gis kii jël ñal wi mën a ko wàccal jël ci tali bi jël si ci yoon wi moom moo fi ne jub jubal jubbanti bu jàddee wudul yoon des koy wax waaw na leeral li mu war a leeral parce que jot na moom temps am na waaye nu nag suñ temps dafa am moom temps benn la ci moom dong ñun suñu temps ñun cette politique africaine il faut mu définir ko mu leer ci ñëpp liggéey saa ngi wax na ñëpp ko dégg waaw na am courage jóg taxaw toj bal bi ñëpp xam li xew te armée France bi fi jóge Macky Sall bi dañ ko jàpp indi denc ko yóbbu ko travaux forcés te du moom dong ah. képp ko fi yor juróomi dërëm muy wàlliyu mu di dëmm muy sénégalais mu di sëriñ muy xalif général man Ousmane Dramé li ma am ci réew mi képp ñu ne carax carax carax leen rek billaay naa ko layoog yow dama ne ku ne carax ku ne ci carax ci li ma moom sama wàll nga lekk ko jéggalu ma te yàlla na suñu borom àtte kon la président de la république jógal nga lijjanti lii Sénégal yi so sàcc yi taxawaalu ci dëkk bi xam nañ leen de jàpp leen tëj ci kaso bi favoritisme bi doon amit am na ba tey heure bi Wally Seck ko ko bàyyi muy traîner foofu yàq na xale yëpp waaw ànd ak góor jigéen ngeen di tëgg foofu sara xolle ah, mm, ah, kii di maye xaalis ah dama ne nit ñi sonn nañ toqi nañ dàcc nañ le président de la république encore une fois ñun ñëpp dañoo toog rek waaye am na luñ xam ne pat mu metti lool ci suñuy xol yaakaar ne da nga soppiku léegi waaye jóg jot na jóg jot na de kenn ku ne xam ne da ngay nàmm ka waaj ka defar xam nañ loolu waaye nag Macky Sall moom war nga ci def action lii xew yi am bañ fee amati lii am lii am Dakar defoo naa ne yow doo ko nangu defoo naa policier yow tas xew yi jàpp waa def ci kaso bi waaye defu leen ko xale yëpp nag ñu ngi toog di seetaan te xale yi dañ dañoo dal de xale métier métier xale mooy déglu métier xale mooy déglu métier mag mooy wuti liggéey. xale déglu ku yàlla sant muy déglu pour xam kooku loolu la yàlla jagleel xale bu ngeen xale yi dañoo dof yéen yéen a dof waaw kon maa ngi ziyaare ñëpp di ñaaral ñëpp jàmm te bëgg ñu partager video bi tasaare ko ñun ñëpp nag ci projet bi leen jàpp ñun ñëpp ay sénégalais ay panafricanistes lañ moo tax dëgg dong la ñuy wax duñ fax loo xam ne day ay politique ñu duñ politique ñu duñ ay politique dañoo dund ci rythme boo xam ne mooy mooy mooy suñ sool moom lañ gëm ci la ñu nekk euh, ànd ko nag ay kilifa yoo xam ne ñoo ko sosoon mu ñoom Cheikh Anta Diop ñoom docteur Kourouma ñoom nga xam ne ñoonu booleen boolee Afrique tey ak Modibo Keïta ci loolu la les pays du aw nañ leen ñaanal ñooñu ñi ngi ils sont en train de former un état ñun amaguñ état ndax amuñ souveraineté buñ amoon état Ousmane Sonko day bokk ci élection yi dana doon président bu nu amoon état dëgg dëgg dëgg xale yi nekk cent ñu téye leen kenn du leen traité noonu bu nu amoon état dëgg dëgg dëgg dëgg te am état souveraineté la ñuy am souveraineté nag bu nu ko amoon armée francais du toog Sénégal dama ne ñun amuñu république dañuy fen te wax naa ne ko ba tey y a aucun Sénégalais qui peut définir une république ci wolof wala Haalpulaar ban xam ko tubaab bi xëy indi Modou Ndiaye ngir ñu toog Modou Modou Modou Modou jeex na waaye dañuy def xamuñu ci dara. Ah, pour retrouver pour retrouver cette souveraineté nak, il faut ñu jóglu ci la souveraineté li koy indi mooy droit droit nga jang sa bop, xam sa bop, tak sa règlement wañu ko na xool li la wër xool li nga mom, xool fi nga jëm xool ni nga yandal. pour définir une politique d'émancipation bo xam ne ku ne jàkk xam ne kii kat diwa te àggaguñu le Sénégal n'est pas indépendant du tout te ba heure bi président Diomaye li ma ko wax xam ne àdduna noonu la demee suñ coono bi yàgg na trop yàgg na trop yàgg na trop metti na waaye ay pexe ba tey am na ay pexe ba tey am na ndax suñu borom bu nu yebal Sénégal diñ ko jox jal fi ay bagages jox ñu xel moo xam ne ci suñu yuur la ne ndax yuur gi gi nga xam ne moom laa yor euh, kilifa gu ne Sénégal gu ne Ah, ba ci Macron ba ci Diomaye ak Macky Sall suñu yuur yi bu leen il faut nu am am xol te bàyyi yuur gi fonctionner te jublu ci suñu bopp àdduna bépp dem na àdduna bépp dem ñu traîner les pieds euh, Sénégal une très grande nation une nation boo sa popularité dépasse notre nos frontières àdduna bépp foo taxaw boo ne Sénégal la dañ day daal di xam dañ di ak dégg réew mi kon réew mu yàgg la wax naa leen réew mi ca conférence du Berlin fekkoon na Sénégal nekk ci activité politique yu mag sax yu mag avant Berlin di taxaw nu fekk na nu xam luy élection fekk na xam nuy fale fekk na nu xam lépp wax naa leen l'indépendance du Kayor comment le Kayor a reçu son indépendance bi Kajoor di jot indépendance ak Mari Ngoone Sobel Fall Damel d fu njoogu La dengone la ak ay ay ay ce qui li xew ci xam nañ ko gouvernement France gouvernement la France a recopié l'état Libou pour créer son gouvernement L'État ko ci l'état Libou, te état que mi ngi du Cayor. parce que l'État yi ay cayor ak séeréer rek kadior kadior ak ak ak les pêcheurs li waa ils se sont formés en communauté pour créer cet état lébu architecture bobu nak moo bi jël mais lu jitu lébu yi des siècles avant le rassemblement des lébu fekk na ñun wa kadior ñu des ko kadior bawol njaam dag ko ay province liggéeyal wooyu Nations Unies fekk no am ko ko bu yàgga yàgg lañ ko am tubaab yi ñun lañ ko gisee leen Nations ñu ngi ko jëlee ci njàmbur njàmbur moo nekkoon ci digg Sénégal nekk ci Kajoor Bawol Siin dëkk yépp problème bu nu am di ko lijjanti ñëw njàmbur njàmbur mooy ko jàmbure ku am ko ab jàmbur la bàyyi leen ko njàmbur kenn ko attaqué Suisse kenn ko attaqué loolu lépp njàmbur lañ ko jëlee buur yi dañ daa dajaloo njàmbur waxtaan jaraaf yi moo les ambassadeurs ñu dikk toog jaraaf yëpp toog ak pays yëpp toog nu waxtaan muy ay assemblée yoo xam ne ñun ban ko xamee boobu France amut kën dil si am jom te jàng suñ làkk wi jàng suñ aada ak suñu cosaan natt suñ bopp naar bi dañoo nax l'islam bii nu indi du l'islam yi dara kan bokk waxante dëgg lislaam bi munuñ ci ñaan mu nangu munuñu ko bu ci waroon na ñaan mu nangu tàngoor yi duñu topp buñ ci mënoon ñaan mu nangu suñ alal ji tubaab bi yóbbu dana ko fi ba waaw buñ ci mënoon ñaan mu nangu ñaan mu nangu l'islam bi wóor la ñuy doxal Sénégal mais l'islam bi mook parti politique ñoo yem loolu tubaab bee ko daggee noonu tarixa yéegi yëpp tubaab bee ko defee noonu pour nous diviser nangu lislaam ji ci imam yi jox ko xalif généraux yi tubaab bi moo doxal loolu loolu ku ne xam na ko buñ bokkul nag góor-góoru jéem a soppiku non seulement dañu torox fi waye dañu dé dem sawara kën góorgóor do nit ay tiflit ta lijeenti dara li lijeenti nit ci xel mi la né ak xol be katan gi ak bëgg gi ak man gi ak and gi ah, ak dajalé gi té baña yaq lolu moy défar waaw te def sam xel nak nga bokkal aduna bi ñuy daw nit buy rawante day xol ki mi andal ki mi la ki nga langal di daw dee ko may xel de ko may xel waye boko topando top ko rek moom dana dem ndax dang koy topando topando nak bokut ak topando bax da melne ngay topando wali sek ci ay way du yag mukk ba nga raw ko ba nga raw ko du yag mukk ba nga romb ko nit day am fit waaw day am fit waaw ñemee laal luy maas luy maas ñu tegg loxo ba seet lum saf doomu aadama dafa dafa wara a waaye bu ngeen defee ne français leen di xont ah jànkati tubaab yi nga xam ne xamuñu dara France leen jànge France xamuñ xoola moo tax kees goo leen dénk daañu ko sàcc dama ne ñu jànge France ñu jànge France cent pour cent sax wax ñu jànge France laa la wax de billaahi wallaahi du ñooy defar Afrique parce que France ci Afrique la sukkandiku pour dund France li mu lépp da koo sàcc li mu lépp da koy sàcc ab sàcc nag buy jàngal sa doom yow foo jëm yow sàcc bi lay sàcc jël sa doom di ko jàngal du yàgg mukk ba sa doom xam li muy sàcc ci yow te buñ awee ci droit les droits humains buñ ci awee teg ko ci xool da xam ne France réew mun war a sot sot koy bomb la parce que li mu def ci àdduna jëfin yu ñaaw yu ne ak bakkan yi mu faat tey ngeen jël seen doom yi yóbbu ko France naan moom da am na la am na master xale bi xamul dara bopp bi leen wëlbati xool leen ñi jànge woon France après les indépendants jusqu'à présent ñoom lañ jox réew mi ah est-ce que am ngeen du ngeen lekk finance xamuñ ci dara am njàng boo ko bëggee njàng mu bën da ngay ñëw aux États-Unis def fi finance fii ñoo xam finance mooy lan waaw ñii ñoo xam finance mooy lan nga jàng ko fi xam naka la waaw moo tax les les yi nekk Sénégal France da na a aaye ne leen jël jàngkat yi Amérique yi amul kenn ku jógee Amérique mës bokk ci gouvernement amul kenn ku jógee Amérique ñu bëgg laa boole ci assemblée nationale wala dara dañoo discriminer te billaahi wallaahi mën na jàng di leen wër waaw les corrup xola les faux diplômes yi jóge France c'est diplômé ñoom ngeen jël ah dajale leen foofu ah. mais euh, Abdoulaye Wade dafa ne euh, bu nu la falee guddi gi ngay jëkk a dugg pale dugg toog dossier yi jëkk laal yi ngay jëkk a laal soo fi dinaan teel soo fi dinaan teel ndax la yaakaar ne moom nga yor ba mu tax la document yi nekk pale ah. ñàkk indépendance ga nekk palais ba ëllëg armée Fra euh, nu euh, bu France dikk leer la lépp leer ci sa bopp dangay ngay dar sa gémmiñ yow da ngay dar sa gémmiñ fu ma jëm askan wi ak li ma leen dig waaw laaj Ablaye Wade laaj naa ko fii à New York ma xawal ko ne ko damaa bëgg dimbali ma ngir yàlla rek wax ma ba Sénégal am na indépendance maanaam benn document boo ma mën a présenté bu wanee ne c'est la décoration de l'indépendance du Sénégal Abdoulaye Wade ne kayit woo de amuñu ko moom mosuma ko gis document buñ signé ak kana signé ak Sénégal ak ñana ko signé ak demande bi man de mosuma koo gis ba mu na moom Ousmane yow sam xel daa gudd yooyu nañ ko teg fële te doxal nan doxal rek bu doxalee rek daanu ci jàmm la ñuy mujj laaj na ko Pape Diop it maire Dakar li mu wax benn la indépendance day mus ta gis aw këyit wu signé ak kan signé këyit bi ah neen mus koo gis te leer na ko ne leer na ko ne euh, indépendance amuñu ko Pape Diop nee na bu demee France dana gëstu am nañu indépendance wala déet loolu Pape Diop wax na ma ko fii vidéo yooyu yëpp mën naa leen ko won waaw Sénégal musuñoo demander indépendance amul benn sénégalais bu ma si jël aw kayit bind ci France ab lettre ne ko bëgg sama indépendance sëriñ si fi nekkoon tubaab bi dana sëriñ la amal affaire amul affaire ak intellectuel yi nee nañu samay doom lañ maa leen jàngal maa leen fi indi ñii intellectuel am tubaab bi amul ñoo affaire tubaab bi bi déggoon ñëwee Sénégal sëriñ si la affrontel sëriñ si la affrontel sëriñ si ne ko bëggunu indépendance sëriñ si ñoo ko ne bëggunu indépendance la sun maam amoon ca la ñu ne jotuwuñu yow dara yaa ngi sa jàmm noo ngi suñ jàmm loolu la ñu wax dëggal sëriñ si woon tribune yëpp dañ juru xatraayu sax kenn ko ne maa koy ñaanal bisimilah bisimilah ram yi dafa nga indépendance du ñëw pour wax ko demandé ko Senghor dem Senghor nekku fi Mamadou Dia newu fi Lamine Gueye nekku fi député ministre assemblée beeg demoon demoon Suisse vacances tribune bi sëriñ si rekk fi nekkoon ak yenn géwél yi ak tëggkat yi ak fecckat yi ñoom Mbaye Jacques Diop ñoo fi nekkoon naan nous réclamons notre indépendance dégg si vous voulez l'indépendance prenez-la si vous voulez prenez-la loolu la yow tontu ñoom Mbaye Jacques Diop mais Sénégal mosut bind ab lettre France ne ko damaa bëgg sama souveraineté mosut am xanaa ñoom jomaay def ko. waaw ngeen baal ma ngeen baal ma dama bëggoon tëjee rek Pape Diop question boo xam ne maa ko posé fii ci WPAT 930 mooy station rajo bu nekk New York fii. nga xam ne ñun africain yëpp koy déglu daanaka station panafricain la ah, ma bëggoon ngeen déglu Pape Diop laaj naa ko ci indépendance du Sénégal ci aqullahi taalam ndax mas naa gis aw këyit këyit woo xam ne ah, dañ ko bind ñaan indépendance wala kayit tubaab bi signé ak kana ko signé pour am indépendance waaw nettali moom ab joxañ da baax kan ko boo ko déglu ni ma ko laajee pap Diop ni laa ko laajee Macky Sall waxuma dara nii laa ko laajee Abdoulaye Wade mu wax ma waxee nanga sa kandang Pape ci tane li mu wax kon nan bokk déglu Pape Diop ten bokk di xalaat te xam ne nit boo amul souveraineté amulum réew Ousmane Sonko dañ ne souveraineté laay wut souveraineté laay wut soo nit mooy kin jàttang yeew ko tënku ko mooy bëgg ko tinki boppam wala ñu tinki ko kon kan bokk déglu euh, Pape Diop te xam ne lii moo wax mooy dëgg waaw Serigne sëpp dañoo may réew mi dañoo may réew mi Mbaye Jacques Diop et étudiant moo fa nekkoon di yuuxu naan réclame indépendant indépendant indépendant bi déggal faale wu ko. am mbégte dalal fi le président Pap Diop 212 219 9695 ngeen di def pour poser cette question mbokk mi euh, salaamaaleykum noo tudd ak fooy wootee. Euh, maaleykum salaam maa ngi ziar man Ousmane Dramé euh, ñoo koy dal bu baax a baax a baax loolu mu rek dëgg la duñu dem fenn dama koy laaj. ci àqulayi taala ndax moom bëtam bii mas na cee teg la décoration de l' du Sénégal maanaam këyit wane ne France moo signé ak kan a signé pour nam indépendance ndax man indépendance yi léeguma ndax moom moom moom ak ci politique moomu ci jiitu dama koy laaj di ko ñaan ndax bëtam bii mas na cee teg document bi France signé di ko la décoration de l' indépendance du Sénégal ak kan ak ak France ñoo ko signé maa ngi jégalu. merci beaucoup euh, maa ngi lay maa ngi lay gërëm nga may ma dama wax BOT léegi. mooy build opérate and transfer ma ma ma wax ko pour yéen ñi nekk fii dinañ ko xam. Euh, maa ngi lay gërëm ci loolu. wax dëgg yàlla déclaration de l' indépendance du Sénégal gisuma fu ñu ko signé dëgg yàlla. xam naa ni avant indépendance am na un fait boo xam ni qui reste toujours troublant man dans ma tête boo xam ni ba tey daf ma jaxal parce que bi nga xamee ni euh, le général de Gaulle mi ngi ñëw Dakar euh, di wër pays africains pour ñi bëgg a nekk dans la communauté française wala ñi bëgg a jël seen indépendance euh, xam naa ni booba Lamine Gueye Senghor ak ak Mamadou Dia ñoo fi nekkoon alors je ne sais pas ba tey xaw ma moo tax histoire il faut que ñu ñu seet di wax xale yi li xew Senghor dafa dawoon nekkul ca réew ma lu toll ni général de Gaulle di ñëw pour laaj da bëgg indépendance ou pas mu daw Mamadou Dia tam nekk foon wal jojo moo ko teeru ce fait là man reste troublant pour moi war nañu wax lan moo xewoon ba tax ñu daw ba wal jojo moo doon toog dëggoon ba De Gaulle di wax si vous voulez l'indépendance prenez-la avec les porteurs de pancarte mm. donc ça veut dire que moom bëgguloon a am indépendance waaye dal bobu affaire dal doyna war ci man mm-hmm. mais wax dëgg yàlla gisuma ben document bu woné ñi signé euh, indépendance Sénégal Waye wax nga ma lo xamni ni bu may delu wax deug yalla muy Sénégal wala France danaa fexé ba xam loolu Merci.